de constater qu'en réalité, on le poursuivait pour usurpation de fonction parce que simplement sur son passeport, il est inscrit agent administratif. Mais je me suis demandé pourquoi na pas convoqué la personne qui lui a attribué cette qualité. La deuxième chose, il loge un logement, dans un bâtiment administratif. Pourquoi n'a-t-on pas convoqué la personne qui lui a attribué ce bâtiment? Et il a, il a, il a évoqué les noms des personnes qui, qui, qui lui ont attribué ces avantages. Donc moi, c'est ça que je dis pour le moment. Mais je ne peux pas, moi, me précipiter, aller, aller plus vite que le juge. Mais vous tous, tant que nous sommes, nous sommes surpris que ce dossier n'aboutisse pas à l'enquête sur l'assassinat, n'est-ce pas, de ces deux personnes. Mais maintenant, quelle est la situation euh, actuelle de votre client? Bon, la situation actuelle, il a été mis sous mandat de dépôt. Donc nous, aujourd'hui, notre travail va consister à essayer à le faire entendre rapidement, n'est-ce pas, pour pouvoir demander la liberté provisoire. à ça? Je suis très optimiste. Pour moi, il n'aurait même pas dû aller en prison. Parce que la montagne a accouché d'une souris. Vous voyez? vous tous, vous avez suivi ce qui a été dit à son propos. Il semblerait même qu'il y a une nouvelle plainte qui a été déposée, mais cette plainte, je ne pas vue. Elle n'est pas dans le dossier. Mais même cette plainte-là, si ce sont des faits qui se sont passés avant, vous savez, en droit, quand tu dis quelque chose, tu le définis. Vous comprenez Quand on dit que les faits ayant une motivation politique sont amnistiés. La première, n'est-ce pas, le premier comportement, la première attitude d'un technicien du droit, c'est de définir qu'est-ce qu'un fait, n'est-ce pas, ayant une motivation politique. Vous comprenez Est-ce que la motivation politique résulte des circonstances Est-ce que la motivation politique résulte de la situation juridique même de la personne Est-ce que cette personne, elle a été recrutée pour des raisons politiques ou pour d'autres raisons Vous voyez Donc c'est tellement vaste que je ne veux pas, moi, essayer de le définir ici. Mais je pense que Jérôme Banyagui, tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, ne pouvait avoir que des motivations Bah justement, en parlant de politique, ils semblent être seuls euh, dans cette situation. Est-ce que euh, les politiciens avec qui ils travaillaient euh, sont venus à un point par rapport à cette euh, situation-là ah, Moi, je ne suis pas au courant de cette affaire. En tout cas, moi, je suis là parce que simplement, j'ai un ami commun qui m'a demandé de l'assister. Nous avons un ami commun qui m'a demandé de l'assister. Et moi, je le connaissais auparavant, je savais que c'était une personne bien, magnifique, n'est-ce pas Qui était adulée même par certains qui sont en train aujourd'hui de le poursuivre. Hein? Il était l'intermédiaire entre eux, parce que j'ai vu certains qui disent il était puissant. Oui, par, le, sa proximité avec le président. Et certains en ont bénéficié. Aujourd'hui, c'est ceux qui en ont bénéficié, qui l'ont lâché d'une part, et qui sont en train de l'envoyer à l'enfer d'autre part. Vous êtes le seul avocat Je ne suis pas commis d'office. Je, nous sommes deux avocats. Moi, j'ai été commis par, comme je vous l'ai dit, un de nos amis communs. J'ai un autre confrère, Maître Faragomis, qui est son avocat attitré, qui est à côté de moi. Des perquisitions ont été faites, hein, notamment euh, à la demande de Bandaki et celle de Farbogom. Euh, Avait-il le droit euh, de perquisitionner ces demeures-là ça je, je, ça, je réglerai ça devant le juge. Mais ce que je peux dire, c'est que dans un état de droit, n'est-ce pas l'état de droit réalise toujours un équilibre entre l'autorité et la liberté. Mais l'équilibre doit être favorable à la liberté. C'est ça un état de droit. Parce que la démocratie, quand même, plus l'État s'abstient d'entraver les libertés individuelles, plus, n'est-ce pas, on appréciera cet État-là comme étant un État de droit. Vous comprenez S'agissant de cette affaire en l'espèce, On aurait pu convoquer M. Bandjagui pour qu'il aille répondre. Ça n'a pas été fait. La police a débarqué chez lui et il ressort du PV et des écrits même des policiers qu'ils ont dit qu'ils sont partis là-bas, c'est sur instruction de l'autorité. Alors, la question que je me suis posée, moi, moi, quand tu me dis quelque chose, je me pose toujours des questions. Quelle autorité Est-ce l'autorité judiciaire Je ne le pense pas. Parce que l'autorité judiciaire ne fonctionne pas comme vous comprenez autorité administrative peut-être leur supérieur hiérarchique pourquoi je ne sais pas vous voyez donc ils ont débarqué manu militari chez lui ils ont pris ce qu'ils ont pris ils sont revenus là-bas ils n'ont pas trouvé des éléments n'est-ce pas qui étaient susceptibles de, le, de les éclairer par rapport à ce que tout le monde pensait Quelqu'un, disent-ils, s'est présenté spontanément, il s'appelle Ndiak Diop, je crois, et qui a dit qu'il avait vu en 2021 chez Bandiaki, au domicile de Farbas Gom, avec, euh, avec des gourdins, des trucs. Mais ces faits-là, je dis ces faits-là, je le dis, sans porter des gants, même si ces faits-là existaient, ils sont couverts par la loi d'amnistie. Vous comprenez Et dans un état de droit, on doit respecter, respecter les lois. Et c'est cela qui a justifié, n'est-ce pas, la perquisition qui a été effectuée chez Farbangom. Et la perquisition a été faite à son absence. Or, pour perquisitionner chez quelqu'un, il doit être présent ou il doit désigner quelqu'un comme mandataire pour qu'il soit là. maître euh, tey jii euh, am na kàddu yu bari yuy génn di wax ne que sa client euh, dañu koo toppee ndaxte dafa faat nit est-ce que dafa nekk ay information yooyu dëggal wala yooyu du dëgg. non loolu du dëgg. Hmm. bi moom loolu moom nekk ci génn ci génn ci te laaj nañ ko lu bari laaj bi ñu ko laaj ci loolu dafa dañ ko ne naka nga yéegee faatu ñooñu mu ne leen ci réseaux sociaux yi. loolu rek laa ci mën a wax pour le moment. Euh, laaj nañ ko toppee kon. laaj nañ ko ba laaj ko yow ban est-ce que da ngay da ngay politique ban parti politique nga bokk ah loolu loolu sax laaj est-ce que am nga ay bien say compte bancaire est-ce que am na xaalis vous comprenez. Mm-hmm. mais un, une enquête portant sur un crime nekkul ci dossier bi. Euh, mais ñu ko toppee. liñ koy toppee mooy dañu ne. dafa am passeport diplomatique boo xam ne dañ ciy bind agent administratif mu ne leen man agent administratif binduma ko ci waxuma ko dañ ma ko defar passeport bi damaa toog rek ñu indil ma ko ñu toppee ko ne ko yow da nga da am fonction boo xam ne amuloo ci du noonu yow da nga da nga jox sa bopp benn fonction boo xam ne nekkul mooy usurpation de de ma ne leen puisque moom nee na moom dañ ko ko bindal mais woo leen ki ko ko bindal sax ngeen entendre ko mais woowuñu ko beneen bi ñu ne ko dañ laa jox kër état te amuloo ci droit mu leen man état moo ko jox léegi bu dee état moo ko jox wax na ki ko ko jox dañu woo ki ko ko jox ñu ñu ñu ñu laaj ko lu tax ñu jox ko ko te amu ci droit hein ñu ne ko dangay nga yore arme te amuloo autorisation administrative mu leen arme bi man ki ma ko jaay mooy mooy euh, mooy goro ministre de l'intérieur moo moo ko jaay te bi ma ko jaayee daf ma ne woon daf may toppatool autorisation administrative bi ma demee ba xam ne mënul am autorisation administrative bi ma ne ko xaalis bi ma la joxoon trois cent mille francs delloo ma ko nga ñëw jël si sa arme léegi delloo siwul xaalis bi nee na loolu moo tax mu téye arme bi loolu la wax beneen bi mooy lan ñu ne trouble à l'ordre publique mooy article quatre-vingt loolu pour man xam nga police bu la bëggee jàpp door ci loolu laa gis ko hmm, léegi perquisition ñu def ci këram kër que yoon la xam nga perquisition moom police am na droit def ko mais condition dafa am ay condition yi ñu ko war a defee comprendre nga loolu moo tax ma ne la loolu lu may wax fii parce que ñun dafa am aussi déontologie def du tënk du lépp la ñuy mën a wax vous comprenez on tenu par le secret et la discrétion professionnelle am na loo xam ne bu ma ci xuusee suba suba suba ordre des avocats daf may woo. Euh, mais man dama def man dama def woon ne crime mu Fulbert. Euh, ak Didier Badji ak Didier Badji lañ koy toppee man loolu laa yaakaaroon de. mais bi ma ñëwee ba gis dossier bi dama xam ne kii kii xoolal jegewul sax bay laale ci loolu xamul sax li xew vous savez les Sénégalais ils doivent être quand même plus avertis et plus vigilants vous comprenez deux gendarmes c'est deux gendarmes non deux gendarmes on dit les gens disent qu'ils ont été tués hein mais loolu ça ne peut relever que d'une raison d'État vous comprenez enquête boobu du enquête bu ñuy def ci justice c'est une enquête qui doit être interne à l'armée à la police et à la gendarmerie est-ce que yaa ngi may dégg am loo xam ne kenn du ko teg sur la place publique baaxul ci réew dafay tas réew dafay dafay jaxase réew. yaa ngi wax sànq ni que duñ koy toppee du si couvert bu dee dañ ko toppee article quatre-vingt trouble à l'ordre public ah bu dee dañ koy topp toppee leneen leneen li sax mun naa ci xaw a tey tuuti mais trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public bi kañ la am ça ne peut être qu'avant les élections et tous ces faits là ayant une motivation politique ah loi d'amnistie bi couvrir na ko sànq wax naa la ci tubaab ma ne la juriste boo nekkee technicien buñ la waxee dara da ngay mu da koy mun a faram-fàcce bu ñu nee crime et délit motivation politique da nga naan lan mooy crime et délit ak motivation politique est-ce que qualité wu nit ki mooy définir motivation politique maanaam nit ki bu fekkente ne dañ ko jël pour des raisons politiques muy assumer des actions politiques est-ce que mënuñu wax ne kii li mu doon def yëpp politique moo ko moo ko moo ko waral comprendre man foofu lay waxee mhm. mais loolu du loo xam ne dama ci jéem a convaincre opinion bi wala man li ma gënoon a ñor rek ci dossier bi mooy nit ñi xam ne ci dossier bi il pas question il n'est nullement question n'est-ce pas d'un meurtre d'un crime ou d'un assassinat contrairement ak li ma dégg ñenn ñi di wax ci plateau yi wax nañ ba wax ne waa ji li mu xam dafa bëri ah bu waxee dëkk bi day tas am na yoo xam ne bi ñu ko jàpp see dafa doon xeex c'est faux xeexul ak kenn sama consœur bi question maanaam tey jii en tant que avocat lan ngeen di waajal parce que yaa ngi naan da ngeen bëgg def euh, demande de liberté provisoire. provisoire xam nga c' est prématuré pour le moment parce que parce que pour ñu mën koo dugal il faut ñu entendre ko au fond. au moment de la séance man yónnee naa ay message yu bëri maître Aïssata Tall Sall pour wax ko ne man d'accord ma ci loi loolu c'est c'est une c'est une attitude personnelle du ma ko wax à partir du moment où loi bi voté nañ mais loi bi voté nañ ko ba pare te loi bi dafa ne tous les crimes et délits ayant une motivation politique far nañ mais loolu la loi bi wax tous les crimes et délits ayant une motivation politique bu souffrirul ci li fi xewal y compris moi vous comprenez qui n'a pas souffert de ça et loolu li ñu ko teg c'est la responsabilité responsabilité homme politique yi la xam nga responsabilité xam nga dégg naa ñu naan ñoo xam ne dañuy wax ne affaire yi fi xewoon deux mille vingt et un ak euh, événement yi fi xewoon pendant que le parti au pouvoir a été dans l'opposition dañ ko war a saytu àttewaat mais ils n'ont pas xam nga la responsabilité la responsabilité pénale ce n'est pas simplement une responsabilité matérielle comprendre c'est-à-dire il y a des cas où il y a un enchevêtrement de responsabilité suñu code pénal dafa ne dafa ne yow boo dajalee mbooloo nga dajalee mbooloo dajale mbooloo boobu nga am autorisation wala nga am autorisation parce que yaa may dégg code pénal laa lay wax yow nga provoqué benn ndaje ndaje boobu boo amee autorisation wala amuloo autorisation bu ci nit wala nit faatu wala ak li mu di xew mi sookee ndaje bi yow yaay le premier responsable bu ñu amatee trois loolu la wax trois loolu la wax dafa ne daje gis nga maa ngi excuse wu sax ni ma koy tudd Viviane Ndour man je travaille beaucoup avec les gens Viviane Ndour organise na benn concert Waan Kaw Waan Kaw de mais yoon dafa woo c'était c'était un concert c'était autorisé les publics noonu lay vous comprenez. mais dafa am nit ñoo xam ne xamuñu li xew. tu comprends dajale leen ne mbooloo mu am kenn ku jël ku jël fetal tiire mais kooku responsable na ci li mu jël fetal tiire comprendre mais ki soo ko dajale n'est-ce pas mooy le responsable numéro un parce que ndaje bi bu amul woon loolu du am droit loolu la woon bu ñu delloo ci droit rek Sénégal du am problème. mais bu ñu toogee ci réew moo xam ne ku nekk da ngay wax lu la neex ku nekk da ngay def lu la neex xoolal ci mur bi lañ def vous comprenez te soreetuñu loolu moi j'ai vu des enquêtes yoo xam ne mais dañ koy def ci réseau réseaux sociaux yi ah ci ñoo xam ne amuñu benn qualité parfois sax dañuy am ay information yoo xam ne ñoom xamuñu naka lañ koy traité mais kan moo leen jox information yooyu man dossier bi dossier bi man dama ko vérifié enquête bi bi mu commencé ba tey dama ko vérifié amul benn journaliste boo xam ne woo na ma ma wax ak yow pour jox la information amul pourtant parfois damay lii ma gis ay fuite yuy am ci dossier bi hein donc par rapport. à la plainte de Tambon, que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Vous comprenez L'eau, même petit dossier. C'est un conseiller vraiment. Après le réunion, nous sommes le temps. On a besoin d'une réconciliation. On n'a pas besoin de guerre dans ce pays. Vous comprenez Donc moi, je pense que ce qui est passé est passé. Il ne faut pas qu'on revienne sur ça. On n'a qu'à regarder vers l'avenir. xool naka la ñuy tabaxee suñu réew n'est-ce pas avec des esprits sains vous comprenez man di naa ci réew mi de non dëgg la ah ah. bon j'ai une question. oui allez-y. voilà vous dites passer à autre chose mais tamit vous savez que li ci xewoon avec beaucoup de perte de vie humaine est-ce que loolu tamit dañ koy bàyyi mu nax say parce que ay bakkan yu bari moo rotoon et puis dans une république aussi est-ce que li nga xamante ni dañoo génnoon àddina bi dañoo ay njaboot donc tamit il faut l'éclairer mënoo jël loolu yëpp tamit en terre ouverte. non xam nga li anormal mooy déggoo li ma la wax moi je suis contre la loi d'amnistie waxuma ko. grand gisuma la de dama la bëgg a xool bu may man samay propos waxuma la ne je suis la loi d'amnistie wax naa ko xanaa ku la wax loolu kay boobu dafa bëgg bëggul ñu far li fi xewoon yëpp du dëgg mais dama leen ne ci samay propos mais am na ñu ci bénéficier C'est-à-dire, tu sais, tu sais, une loi, elle est impersonnelle. Moi, je, je, ne vais pas défendre qu'on puisse fermer les yeux sur les morts. Vous comprenez Mais je suis la loi d'amnistie a couvert tout ça. Parce que la loi d'amnistie a dit que tous les faits qui ont une motivation politique. Vous comprenez Et pour ces morts, je l'ai dit, la responsabilité pénale n'est pas exclusivement une responsabilité matérielle. Il y a d'abord une responsabilité morale. Lorsque vous provoquez un attroupement, une rencontre de personnes, que même vous organisez un, une, séance de sabbat, une soirée dansante, que vous êtes l'organisateur, que c'est vous qui avez provoqué cette rencontre, lorsqu'il y a des morts ou des blessés dans cette rencontre-là, dans cet attroupement, le premier responsable, c'est la personne qui a provoqué la rencontre. loolu laa la wax waxuma la ah mais nit ñi dañuy yaakaar ne bu ñu waree àtte juge buy àtte affaire bi foofu lay commencé dañuy dañuy yaakaar ne bu ñuy àtte affaire bi dañuy dem jël diw ne yow yaa diw rek ah kooku moom am na responsabilité am na un niveau de responsabilité boo xam ne moom am na ko ki yore pour nay dóor ni am na niveau de responsabilité boo xam ne am na ko. mais niveau de responsabilité bi gën a grave ci code pénal laa lay wax mooy ñi ñi sooke ndaje bi mooy responsabilité morale loolu moo tax yow booy demander autorisation de marche wala autorisation de cité ak lu mën di doon ñu mu signé tu comprends pour que demee bu fa dara xewee n'est-ce loolu loolu mooy dëgg Vous comprenez Donc quand les gens disent que voilà, nous, nous, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais les politiques, c'est une minorité dans ce pays. C'est eux qui ont voté la loi d'amnistie. Ils l'ont votée. Elle a été, elle a été publiée au journal officiel, mais c'est terminé. Mais est-ce qu'il ne euh, pour se protéger euh, le 20 janvier Comment Mais qu'ils votent pour se protéger eux-mêmes. ou qu'ils votent pour autre chose, nous tous, nous avons laissé faire. C'est ça la vérité. Vous comprenez Mais c'est ça la vérité. Loi d'amnistie, vous pouvez voter à l'Assemblée nationale. Qui en a bénéficié au maximum ah, c'est pas une question que je vous pose, hein, que je me pose moi-même. Hein. Ce sont les hommes politiques qui en ont bénéficié au maximum, surtout l'opposition. l'opposition sénégalaise, n'est-ce pas Même si une partie, une bonne partie de l'opposition a refusé de voter cette loi, mais elle a été votée. Elle a été votée. Et une république, tu ne peux pas voter une loi et passer à côté de la loi. Parce que c'est ça la vie. dañu xoolal dañu war a xoolante waxante dëgg bañ a naxante comprendre naxante mooy ñu voté loi bi ba pare. ay nit toog fële naan waaw malgré la loi nañu réglé nañu réglé non tous les faits tous les faits ayant une motivation politique ont été couverts par la loi loolu loolu mooy dëgg. waaw. d' ànd ak les hommes politiques nañu xam li ñuy def nañu xam fu ñuy yem parce que bu ñu amee problème n'est-ce pas mais je te donne un exemple mon confrère Cheikh Ouleye Siba Cheikh Ouleye Siba dama lay jox exemple la Cheikh Ouleye Siba lan la dajul ak compagnonnage am ak maître Ablaye Wade Cheikh Ouleye Siba ñaata yoon la dem prison parce que parce que lui il était le directeur de publication du journal Le Soleil il était au PDS. ñaata yoon mais quand le président Wade a pris le pouvoir lan la defal Cheikh Ould Siba hein moi-même moi moi j'ai défendu un leader politique comprendre ba ñu convoqué ma inculpé ma après hein tu sais le problème du Sénégal ce sont les hommes politiques du ñun de ce sont les hommes politiques parce que bu ñuy xeex ci seen intérêt dañuy def ay dégâts ci ñoo xam ne vraiment c'est des pauvres personnes tu vois peut-être qu'ils pensaient que avec leur proximité ils pouvaient s'en sortir waaye mais après quand il y a des problèmes duñ la toppatoo la faale mais c'est ça la la même cuillère à Gagbo. Je parle de vous. Je dis, vous semblez la même cuillère à Gagbo. Alors, selon vous, quelles sont les motivations réelles qui poussent, qui, qui, qui poussent les, ces, ces gens-là qui ont donné l'ordre d'arrêter, les sociétés qui ont donné l'ordre d'arrêter euh, Jérôme euh, Pajak Quelles sont les motivations réelles selon vous D'abord, je n'ai pas, pas lavé mon client à grande eau. C'est pas grave. Je ne l'ai pas lavé ici. J'ai dit des choses qui se sont passées sans dire qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable tey waxuma loolu je n'ai pas laaj bu ma koy laaj rek bu ma koy laaj moi je ne plaide pas sur des plateaux de télévision su ma koy laaj c'est devant le juge d'instruction que je vais le laver vous comprenez c'est là-bas que je vais le laver ou devant le tribunal mais ici il ne s'agit pas de le laver parce que c'est pas c'est pas à l'opinion de faire la justice ça a toujours été mon combat. Vous comprenez Parce que des gens disent, oui, la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, donc ne pas me Si ce n'était que ça, nous n'est-ce pas, État, État qui forme des magistrats, qui forme des avocats, qui forme La justice est rendue au nom du peuple sénégalais, mais par des spécialistes du droit. Vous comprenez C'est de télévision qu'on lave les gens. parce que li ñuy jël problème justement au Sénégal n'est-ce pas c'est cette c'est cette c'est le fait de de de porter les procès devant l'opinion publique tu comprends ku nekk di am lu muy wax ci yoo xam ne maîtriser woo vous comprenez moi je vous ai dit les faits pour lesquels vous êtes poursuivi j'ai dit j'ai dit s'agissant de de de de l'usurpation de fonction je pas dit que am na wala amul dama ne normalement waroon nañu woo ki ko bindal loolu comprendre bu fekkee ne man dama bind sama passeport que ni je premier ministre man ma dem ministère des affaires étrangères ñu bindal ma profession premier ministre d' accord je ne suis premier ministre mais ki ma bindal premier ministre pourquoi du ko woo en tant que loolu trafic trafic d'armes le trafic c'est un commerce ñu kii trafiqué na ay armes bu dee dafa trafiqué armes pourquoi duñu woo ñi nga xam ne ñoo jënd armes yi bu dee xam nañ leen ñu ne détention illégale d'armes mu ne leen arme bii de maa ngi ko jëndee fii diw moo ma ko jaay pourquoi duñu woo ñiy liggéey foofu entendre leen ak diw boobu jaay ko pourquoi duñu ko woo entendre ko. man loolu laa wax loolu laa wax parce que vous n'avez pas qualité pour laver ma kii Jérôme non je ne vais pas vous demander de le laver par contre par contre ceux qui disaient que mon client est un assassin qu'il a tué des gens sur ce point je le lave il n'est pas poursuivi pour ça c'est pour ça que je le lave par rapport à ce point-là à la limite l'objet de cette conférence de presse était de dire aux Sénégalais que M. Bandagui n'est pas poursuivi pour ni crime d'un quelconque Sénégalais. Il n'a pas tué une mouche. Là, je à grand mot. Mais pour les qui sont dans le je ne peux pas le laver devant vous. Je justice. Mais je dis qu'il a des faits pour lesquels il est poursuivi, qui, pour moi, sont couverts par la loi d'amnistie loolu laa loolu laa si c'est ça laver mon client je l'ai lavé avec de